ci ndigalul sëriñ Saliou Thioune ndigal man la sëriñ Khadim Thioune moom Cheikh Béthio maa ngi ñaanal sëriñ Mountakha Mbacké xalifa général des Mourides yàlla yàggal ko fi te wéral ko di ko ñaanal it sëriñ Cheikh Mbacké moom sëriñ Saliou mu yàgg fi lool te wér di ko ñaanal xalifa général des Thiantakoune sëriñ Saliou maa ngi yëkkati kàddu ci ndigalam sëñ Saliou daa jox ndigal taalibe yi ngir ñu amalee gàmmu gi nga xam ni moom lañu war a amal suba fii ci madinat salaam ñu amalee ko fa ndakaaru ca Touba Njurul nee na nag mu ngi ci woo taalibe yëpp ñu fekk ko fa li ko waral nag mooy ginnaaw bi mu defee demande d'autorisation ba noppi dañu koo xamal ne mayuñu ko ngir mu mën faa woote ca madinatu salaam gàmmu gi ndax kat jàpp nañ ne bu ñu fa defee gàmmu gi mën naa jur ay coow yoo xam ni aw nit ñoo ko fay indi te moom de du nituk coow moom day jàmm rekk a ko tax a jóg moom day fii nga xam ne mooy madinatu salaam bàyyam a ko sos nekkoon fi ak ñun njaboot gi yëpp ñu di fi amal gàmmu gi di fi amal julli iit yi di fi amal 17 avril gi xew-xew diine buy am fii lañ ko daan amal te coow mu su fi am kon nag sëñ bi du nëbbu ci ay bët ñu noppee ko gis ci bët mu mel ni ay coow dafay am mu di ko fekkee nee na loolu de moom dara jaralu ko ba tax na mu ngi digal taalibe yi ñu fekk si ko tuubaa njurul ca Dakaaru ñu amale fa gàmmu gi xanaa rek di soññ mbokki talibe yi ci ñu xam ni woo na ñëpp ci ak yar ak teggin aku bi ndax ndigal di loo gis ci àddina bi ndigal a kopp doole kon woo na ñëpp ci ñu tënku ci ndigal te àndandoog moom foofee ca ca Tuubaa njurul gàmmu gi nga xam ni moom lañuy amal suba ngi ñaan taalibe yi ñëpp ñu ne ci dal te noonu mu ko waxee rek ñu àndee ko ak moom di ñaan ci yàlla yonent bi Serigne Touba ñu amal ko ci jàmm ci barkeb sëriñ Saliou barkeb Cheikh Béthio. muy tawfeex ju